salaamaaleykum mbokku internet yi ñu seetaan à travers sen Info ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk tey nag ñu ñëwaat ak yéen euh, ci seen biir émission actualité comme ni koy defee saa su ne nag actualité yi fi xew bëri na doy waar lool lool lool nag tey nag euh, ñu fas yéene waxtaanee ki nga xamante ne mooy imam euh, Lamine Sall muy dérapage boobu nga xamante ne defoon na ko wal fajiri loolu tax nag ñuy dalal nag oustaz Souleymane Diaw tey ñu fas yéene cee waxtaanee oustaz ñu ngi lay dalal suñu biir. émission euh, alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina wa nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama euh, ñi ngi am mbégte ak contentement ci invité bi nga xam ne ko fii ci Thiès Info di ziar waa Thiès Info yëpp baw ñu kenn tabarakallah macha allah oustaz mbir moomu xewee fële ca wal fajri yow ñu xamee la nga nekk wal fajri dafa def liggéey bu am solo oustaz ñu bëgg rek nga dellu si waat tuuti ci euh, euh, wax yu doy waar yu yu ñaaw yooyu nga xamante ni kii di li oustaz euh, imam imam Lamine Sall wax na ko ci émission boobu ñuy woowee diine ak jamono muy wax ba tudd catholique yi daal di leen mel ni lu leen dàkkantale ak nga xamante tafoo ak nga xamante yi franc yi loolu nan nga ko déggee oustaz nekk lu waaw euh, jërëjëf euh, soxna euh, Kaja macha allah mel na ni fi may njëkkee rek mooy foofu nga tudd di këru Sidi Lamine Niass yàlla na yàlla yokk leeram te taas ñu ci barkeem di wal fajri ku ne xam na ni wal fajri la voix de cent voix la ñu wax muy kër goo xamante ni Euh, ñëpp xam nañu ni askan wee ko moom askan wi rek la ñu nekkal seen liggéey ci askan wi la ñuy taxaw ndax loolu la fa Sidy Lamine Niass bàyyi loolu fa Sidy Lamine Niass bàyyi itam yàlla xam na ni damay wax te yàlla rek tax loolu moo nekk ci kër ga euh, bi doomam ñëwee muy Cheikh Mouhamadul Haafaz di seex Niass bi mu ñëwee daa defaraat wal fajri maanaam bu dee papaam da ko bàyyi ci diis fi may wax ak yow Cheikh yóbbu na ko ba ci soixante-dix kon li nga ci déggee mooy doomam jooju ku yaru la falaay njëkk a tàmbalee ak yow di Cheikh Niass ku yaru ku teey ku dal ku am personnalité waaye ku bëgg fa papaam tegoon tànkam mu teg ko fa la comme ni ko Cheikh Ahmed xalifa Niass di waxee ci ngërëm yi muy def di ko jëmale ci Cheikh Niass kon Walfadjri la fa nekkoon rek moom moo fa ne mooy kàddu askan wi la baatu askan wi la lépp loo xam ni askan wi soxla na ko wal Walfadjri loolu da cay taxaw ci biir loolu. ci ngeen xamee émission bu mag bu rëy boobu nga xam ni ñëpp a ko xam ndax émission la boo xam ni Sidy Lamine Niass moo ko daan defal boppam yéen ñëpp xam ngeen ne diine jamono Sidy Lamine moo ko daan defal defal boppam jamono di dox di dox ba bu ngeen amee seetlu Sidy Lamine daan ko def ak Ousmane Sène jamono di dox ba Awa Diop Ndiaye daan na def euh, léeg di euh, diine ak jamono ba jamono yi wees di gis ngeen Mouhamadou Moustapha Diop Moustapha Diop euh, DG di ko def moom tam. di ci def liggéey bu rafet ba émission boobu nag ñëwaat ci turam dellusiwaat ci turam te mooy diine ak jamono te bu ñu diine ak jamono gis ngeen si Lamine na mu ko tàmbale woon di ci dox fadilatul oustaz ñu ngi koy nuyu di ko ziar au passage muy jàmbaar di borom xam-xam di ku yiw di ku yaru di ku yëwen ci xam-xamam muy ussage Assane Diouf euh, soxna Kaja oustaz Assane yaakaar naa ni Sénégal gépp mën ñëw témoigner yarute teey dal yiw gi nga xam ni mu ngi ci Oustaz Assane Diouf na nit danga koy seedal rek li nga xam ci moom loolu moo nekk ci Oustaz Assane mu yéene ñëpp jàmm nag yéene réew mi yëpp jàmm fa di Lamine tegoon tànkam ak bëtam foofu la Oustaz Assane Diouf teg tànkam ak bëtam moom moo yor émission bi di diine ak jamono bi nga xam ni ci la imaam Lamine Sall ñëwoon muy def émission bi defin bu rafet macha allah kuy seetaan émission bi jamono yiñ toll gis nga niveau bi nga xam ne yóbbu na fa émission bi mu rafet loolu kon wal ri ah day teel a xam ne askan wi ko moom dafa woote rek invité ay nitam kon ak lu mën a xew ak lu mën a xew nañu woote jàmm ci lu mu mën a doon teg toor ci lu metti yëkkati lu diis yan ko nit yooyu yëpp waxtaan day indi juboo olof Njaay day wax ni. garabu réeroo simmi ñu waxtaan moo koy gor wa shawiruhum fil amri yeneen wi yàlla dani ko soo bëggee sa mission baax delluwoo sa gars yi ngay waxtaan ak ñoom ngay diisoo ñoom ngeen trouver solution mu mel ni wax nga ko sa départ wax Kaja da nga wax ni dérapage looloo am nul n'est parfait amul ko mat ñun diine ak jamono. dañ koy assisté lii bi muy am man dama tardé woon sax keroog mais ci jeexeetu émission bi ci laa yegg si ndax ñun dañuy assisté diine ak jamono di ko suivre di ko seddaan ba mu jeex ndax la fay yo ndax dotte ko ci wàllu xam-xam moo dañ koy suivre ñëw rek mu baasharatan ci njuumte yi amul ku mu dul dal amul ku dul juum. waaw saas doguma la euh, tout à l'heure wax nga vraiment dayo bi nga xamante ne euh, euh, Walfadjri ak ñi fay liggéey moom lañu am rawatina oustaz Assane ñu ngi koy nuyu de passage mais est-ce que ak dayo bi mu am fi mu toll Walfadjri war naa seetaan erreur yu mel noonu ñu di ko génne àdduna bi yëpp di ko seetaan waaw très bien xam nga déjà loolu day question boo am am solo Walfadjri dafa nekk kër goo xamante ni du seetaan mukk ay erreur wala muy dox ci ay erreur wala muy wax ci ay erreur lépp loo xamante ni ñu ngi koy def ñoom lu ñuy saytu la ñuy doon lu ñuy waxtaane la ñuy doon lu ñuy organiser la ñuy doon ba mu tegu ci yoon waaye dama ne la njuumte moom mënta ñàkk doomu aadama yàlla du ko bindee in tuddee insaan mooy fàttkat bi njuumte nag ñëpp lay dal gis nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla dafa ne ko laa tuharrik bihi lisaanaka li taajala bii bàyyil di jiitu jibril bàyyil di ko giitu ci kàddu yi te pourtant info rek la jibril di ñëw di ko jox yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu koy tasaare jumte bi ci wàllu euh, wal fajri wala moom imaam li mu wax foofu laa jëm moo tax may loo tax may ma foofu laa jëm dama lay wax ne la nul n'est parfait doomu aadama matul njuumte am na lan mooy njuumte am na mooy li nga xam ne tey jàngu bi ñu ngi koy génn di ko naqarlu di ko mettitlu ti kàddu yooyu nga xam ni imaam Lamine Sall wax na ko am nañ ci droit ndax ku ñu laal sa maam nga jug yaa ngi may dégg ku ñu tudd sa papa nga jug ku ñu tudd sa yaay nga jug ku ñu tudd sa maam nga jug kon njuumte kenn mënul wax ni amul mais nañu xam ni ñëpp lay maa a dal tey tey li sax ñu war cee woote jàmm war cee ñaan jàmm laa lay wax tey njuulit yi mën nañoo juum def erreur de communication mën na ne waaye suba tam jàngu bi mën na nañoo juum. léegi tey bu fekkente ni kenn ci membre yu jullit ñi dañoo juum def benn acte am lu ñu wax ñu jël loolu indi ko mu ngand indi ko mu garaaw teg ko ci teg taabal joo xam ni ëllëg bis bu juumte bi tourné woo ci ñeetam est-ce que du jur problème attention nul n'est parfait. est-ce que oustaz. Hmm? nul n'est parfait dérapage am na kenn mënul wax dérapage amul ki nga xam ne nag moo juum. ci kàddoom ndax làmminam rëcci na ko ci biir i wax làmminam rëcc na ko te intention bi nit ki rek moo xam boppam nit ki moo xam intention bi ndax blessé jublu wala intention bi ndax bëggoon a leeral la ci jublu far erreur dab ko ca dafay am lépp loo jël natt ko ci sa bopp dafay am suñu diggante nag ak ñoom ak jàngu bi lislaam wax na ci ba pare xul yaa ayyuhal kaafiruun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana wala ana abidun ma ma wala antum abiduna ma a'budu lak lakum diinukum waliya diin yàlla nee lakum diinukum waliya diini ku ci nekk na nga téye sa diine respecté sa diine sàmm sa diine waxal sa diine yenent suñu borom ni ko wax leen ñoom nañu jàpp seen diine ndax àdduna du yàgg mukk ba gëm seen yàlla ñoom yow àdduna du yàgg mukk ba ñoom ñu gëm seen yàlla te ñoom mënuñoo naxasaaye ko muusa ko waale ba convaincre la ñoom te yow it mënuñoo muusa ko wax naxasaale ba convaincre la ba nga gëm seen yàlla ñoom yàlla ni leen ku nekk nag na nga bay sa waar ku nekk lakum diinukum waliya ixlaas yi jël leen seen diine te mooy weddi ngeen ni yonent bi salaa salaam yàllaa ko yónnee jàpp la li ngeen jàpp yéen yéen jullit ñi téye leen seen ixlaas waliya ixlaas yi la lakum diinukum waliya diini ay waliya ixlaas yi maanaam kon li ñu war ñun moo ñu sàmm suñu diine wax nag li diine wax li diine wax noonu nañu ko wax li diine wax bari na moo tax ma ne la su ñu toppee erreur yi ku ci nekk di bu sa morom juumee ci fraction mu nar a jur coow laa wax su yàggee Sénégal mën na am problème. mais oustaz si loolu lañuy ñuy taxaw tuuti. parce que ñun dañu seetlu. Mm. actuellement Sénégal mm. ku fi bëgg a am buzz rek. Mm. foog nga toog ci télé bi. wax toj-toj bu rëy. Euh, dëgg la jumte am na waaye fi mu laal dafa sensible. mu islamo chrétien islamo chrétien dafa sensible parce que wax dëgg yàlla ñoom kenn mësu leen dégg ci lenn ñuy wax waaye fi mu laal dafa sensible est-ce que loolu amul lu mu mën a jur Sénégal beneen bi ci des mooy euh, Walfadjri maa ngi dégg nga ne euh, erreur la waaye tamit yàgg nañu dégg ay waxtaan yoo xamante ni mu ngi xew Walfadjri muy andi ay dérapage est-ce que loolu ri war na cee mën a dëkk waaw non foofu dama am lu mu la ci lu ma la ci tënkal mooy dama la wax ni la wal fajri déggoo li ma la wax seen lépp ci xam-xam lañ koy teg. ndax ka fa nekkoon est-ce que jotul aussi ñuy xool ñi ñuy invité am que mu doon wal fajri ak yeneen télé. falaa jëm falaa jëm xam nga bul fàtte ni bul fàtte ni baatu askan wi bul fàtte ni wal fajri eh, eh, eh, profil ñëpp xam nañ ko mooy li as li metti askan wi ci la wal fajri di dox ci lay xëy ci lay gont kon yooyu mënul ñàkk wal fajri amul débat ule bu amul wal fajri débat bu metti maanaam lu kenn dul wax boo ñëwee ba Walfadjri journaliste yi fa ne dinañ teg yow affaire bi carte sur table ba nga yëkki sa bopp si Lamine ku ne xam ne daawul may kenn dara Sidy Lamine ku ne xam ne daawul may kenn dara dara du tooñ nag daawul may kenn dara waaye dama ne njuumte boroom kër sax dalay dal sa biir kër Walfadjri defuñu Walfadjri waxuñu Walfadjri dañuy invité nit. waaw est-ce que jotul aussi tànn ñi nga xamante ni ñoom lañu war a. moom laa la wax. luy tas réew mi nag war nañ koy. moom laa la wax dama ni la. ki ñu invité. Uh-huh. imaam la. dégg nga man wala du ñu ñàpp de du ñu invité borom xam-xam uh-huh. ki ñu invité nag uh-huh. la yàlla nattu wala boog mu nattu boppam duma wax sax ne la yàlla nattu ki ñu invité la nattu dal ci làmminam li mu wax mu xaw a sensible dama ci ànd ak yow ci sensibilité bi sensible boobu du moins sensible boobu nga xam ne am na dafa sensible yaa ngi dégg comme dafa sensible nag parce que ni mu ko waxee doo jël mukk lu jëm ci wàllu faramaçonnerie nga koy jël di ko tëkkaneeg ak diine diine jooju bu dee yàlla dañuy jaamu rek rek rek loolu ça touche au cœur day gaañ moo tax ma ne la ñoom a ah, droit bi ñu def nii am nañu droit ni lii rafetluwuñu ko lii ànduñu ci naqarlu ko yaa ngi dégg mais pas Walfadjri moom mooy invité ay nit ngir nañu dal ci kaw sàngam wala nañ daw ci kaw Demba wala Paate déedéet. non non j'ai pas dit Walfadjri ah, mais ah. lu ñu tàmm quand di ko ah. gis la mu nekk comme mu nekk Walfadjri ak mu nekk yeneen tele mais li may wax mooy. Mhm. Euh, euh, euh, gis nañu Sénégal ku bëgg def buzz rek. foog nga wax toj toj. c'est ça loolu aussi foog ñu wax ci fan lañ ko teg parce que Sénégal a ngi bëgg a yàq aussi ah. xam nga lu ko waral. yàlla waxloowul ñëpp. yàlla waxloowul ñëpp déedéet yonent bi alayhi salaatu moo gën nit ñi yonent bi ummi yi la mënul bind te moom la yàlla waxloo xool loolu bàcc Seydina Muhammad dañuy dégg fii ñu naan diw na nopp waaye xamul dara ki ñu gën nit ñëpp mooy Seydina Muhammad ummi yi la mënul bind turam te yàlla moom la waxloo dafa am ñu moom communication dafa am ñu moom te communication bokk na ci am na luy arab tuddee istidrak mooy boo juumee ci baat walla nga juum ci wax nga ni du moins excusez-moi bal leen ma wala sax jubluwuma ci woon lii li ma doon bëgg a wax lii la fekk yow wax nga wax ji ba pare de mais rectifier waat nga sa bopp. ñu ñëwaat tuuti nag ci ginnaaw bi jaf problème bi amee Walfadjri ban taxawaay lañu am. waaw pour l'instant nii Walfadjri yi dañoo am seen i mbiru bopp am seen i ay directeur bopp ci télé ba ku ne ak sa dimension boo xam ni yow dimension boobu yow yaa ko gérer yaa ngi dégg li tax nit booy wax dangay wax loo xam man dama am sama ay directeur ñu ne fa ku ci nekk am loo gérer ca loolu ñoom nag comme affaire bi diggante dimb ak tey la affaire bi amagul ci lu yaatu lu nit mën a wax ñoom dinañ ko lijjante lu ci mën a xew moom incha allah nit ñi dañ ko gis incha allah ci. mu mel ni for nañ ci weewu bay def nañ benn lettre de sorte def nañ benn lettre boo xam ne ñu demander pardon. waaw waaw parce que borom kër gi noonu la meloon. nit da doon révolutionnaire da nga koy confirmer. waaw nit da ngay doon révolutionnaire non su fekkee wal fajiri ak ni ma leen xamee bu fekkee tooñ am na dañuy wax baal ma ni ma leen xamee ña fa ne ñoom ñëpp buy tooñ di am ñu naan baal ma. moo tax heure bu ñu leen tooñee àdduna tukki waaw. <laughs> alors ñëw tuuti ci imam. imam euh, man da je me dis que oustaz en tant que imam. donte nag euh, erreur la. nul n'est parfait mais gis nañ ni en tant que imam. imam ngay wax yàlla nee na yonent bi nee na ñëpp di lañ di la déglu est-ce que tamit ñoom waruñoo tey bala ñuy dem ci télé. vraiment revoiraat seen seen seen i li ñu war a waxtaanee ak yi ni mm. mel pour wañ a def erreur yu mel noonu parce que nag dañ leen di déglu mm-hmm. dañ leen di bàyyi xel bu baax pour ma wax la dëgg rek alim la jàmbaar la boroom xam-xam la mm-hmm. te yàlla rek tax mm-hmm. nit moom li da nga koy nangul waaye sénégalais yi dafa am loo xam ne dañ ci am faiblesse laaj ma mooy lan pour ñoom kuy kilifa rek doo juum fii li ñu fi war a defar dafa bari débat ci Sénégal jàpp nañ ni kuy kilifa rek yow doo juum secteur bu mu mën a doon Macky Sall du juum pourquoi xalif général bi du juum pourquoi parce que nit la nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam sax sunu borom doo doon orienté wala qad uuhi ilayka la in ashrakta la yaxbatanna amaluka wala wala takunanna min alxaasirin li yonent bi la ko yàlla wax doole ji ma la jox ak pouvoir bi ma la ndam yi ma la jox ak victoire yi ma la jox ak taar gi ma def ci yow ak yooyu yëpp yëpp yow Mouhamed bis boo juumee ba di ma tëqalee kenn man yàlla ma màbb mboolem lu ma la defoon li yàlla Seydina Mouhamed la ko wax. pour pourquoi ñun duñ juum pourquoi Imam Sall du juum dafa juum njuum te dal na ko mais nit boo juumee leen dong man nag xam nga mooy lan jéggalu ndéem juum ngeen ko jàppee baal leen ma àq ndéem juum dëgg la tamit bal baal leen ma àq ak lu mën a xew rek juum juum jéggalu ak lu mën a xew juum jéggalu ñëppay juum li réew ci ni juum ci réew mi ci xeeti ba ci borom xam-xam ak ay sëriñ kenn xamul nu mu toll de xëy nag moom bosom dafa fës tey. bare sensible fi mu laaj fi mu laal sensible. mais njuumte yi moom post yi mu bare moom bu ma ko doon wax moom fii lañ may fekk man. ni ma li nga wax waroo ko wax te kat yàlla nee na yonent bi nee na laay wax waaw. ci kaw sensibilité boobu. Euh, euh, tey actuellement ñi nga xamante ni ñoo ŋànk wàllum église bi. Mm-hmm. génn nañu ñoom it euh, di def point de presse. Mm-hmm. di tontu ki nga xamante ni mooy oustaz Lamine Sall. Mm-hmm. ban jàngat nga am ci sorti boobu. waaw. mel na ni bu ñu leen dégloo mer nañ loolu. mu koo mbéj ñetti yoon. jarul nga naan ko baal dafay. ok dégg nga li ma wax. koo mbéj ñetti yoon. jarul nga naan ko baal ma dafay. fayu maanaam dañu toll foo xam ne ci ni waa ji waxee bu dee déglu nga ko man tuuti rek laa ci for dafa feeñal nag ni lii ce n'est pas première fois gis nga li ma doon wax ñoom ñu gis ni agression mi ngi am ci seen côté yaa ngi dégg te ñu nit dafa am lu ñu diine wax suñu diine lim ñu wax dañ koy def da ko nit ñi bàyyi xel d'accord njuumte am na dérapage dérapage am na ka na jéggalu rek kon ñoom li mu wax moom ànd naa ci côté boobu mais ñun suñu diine daf ñu sant nañu wax dëgg. foofu tam fu jara bàyyi xel la bàcc lislaam gëmoo yàlla gëmoo yonent bi alayhi salaatu wasalaam islaam utal na la barage gëmoo diine islaam nee nañ seq rafalante rafetalante nañ ko seq rek waaye bu kenn xuus ci sa accès moroom bu kenn dugg sa ter moroom yaa ngi may dégg bu baax a baax a baax su fekkoon ni nag dañoo àttewoo bu dee pays bi baat bi ñu naxte rey ñu indil ñu problème mooy pays laïque bi ñuy wax mais bu dee dañoo àtte àttewoo àttewoo majorité l'islam mooy majorité ci Sénégal c'est la vérité loolu ku mu neex looloo am ku mu naqari looloo am waaye li am solo nag mooy rafetalante fi lañ ko fekk ixsaan fi lañ ko fekk seq jàmm rafetalante ndax depuis boobu ba tey ca mag ña ca baay ya ca papa ya ba fi ñu toll Sénégal tey suñu diggante ak ñoom jàmm ci am jàmm jooju nag lu nit mën ci wax ci dox ci na ci nit dox pour jàmm waaye bu ñu leen dégloo itam gis nañ ni mer nañu loolu wane mm. nañu seen i mer ndax dem nañ ba saisir le procureur. Mm-hmm. Euh, teg pour ñu teg ay daan nga mm-hmm. xamante ni moom mooy Walfadjri mm-hmm. même la CNRA tamit macha allah saisir nañ ko yow en tant que oustaz en tant que citoyen tamit euh, ba lan ngay wax ci loolu. waaw xam nga euh, dëkk dafa am organisation. réew mu mu doon doon dañ koy organiser. bu fekkente ni réew dañuy bàyyi rek mi ngi mel ni kër nga ne ci kër gi bàyyi ku neex ku nekk daf la la neex noo ko mëneeg foo ko mëneeg ku jekk sa moroom duma ku jekk sa moroom xas ku jekk sa moroom wax lu ñaaw ku jekk sa moroom def lu ñaaw ci biir kër gi bu baa borom kër geey sonn borom kër googu nag am na droit jël nag doole bi nga xam ni jox lañ ko ko mooy mu organiser waat këram organiser waat këram mooy punir eh yaa def liw lii tey doo añ daawul am ci kër yi yaa ngi dégg loolu mënul ñàkk waaye mën nga dem ba heure añ nag jot sax nag mbaax am nga ne ah nañ bàyyi mu sell waaye boo lëggee bu li amati kilifa noonu lay def kilifa day jëllale kilifa day jéggale kilifa day baal day baale nit ki nag buñ ko tooñee ba mu wan ne yonent bi nee na ñaar bu ñu xuloowee nee na ku bëgg mbir ma gaaw nee na ki tooñ ne ko ah yaa tooñ ah. ki ñu tooñ ne ko yow lañ tooñ yonent bi nee na léegi wax ci jeex ne ko baal moomu baal laa ko wax ji jeex lu yéeme tamit doy na waar. waaw saa Sénégal ngi bëgg a yàqu. ndax Serigne mbay Mbaye Abdou. am nañu ko andil. Euh, li nga xamante ni mooy couleur góor jigéen yi. ci kaamil waaw waaw loolu oustaz. dimbali ñu rek nga wax. waaw oustaz ñun suñu sénégalais mu ngi Sénégal. bu ñu naan nag bu ñu naan nag Sénégal wàcc na. ba zéro arc xaw ma. bu ñu naan Sénégal wàcc na ba zéro. fii la wàccee ba zéro nag moom. fii la wàccee ba zéro. mais oustaz loolu. waaw looloo lay wan ni waa ànd sàmm jikko yi ci dëgg lañ ne kaa bii nii moo la war a wan ni waa ànd sàmm jikko yi la wax ànd nañu ànd sàmm tëdd ngay jikko yi bu ñu demee ba am fit te lu ñu def am na lu tax ñu def ko am fitu ciblé kër gu mag ci Sénégal nga xam ni xam-xam rek bu dee xam-xam rek Sénégal yëpp war nañoo nangu ñu Tiwaawan moom dañ koo am ñu dem fekk fa ka nga xam ni moom daray àdduna ñoru ko léppam diine la muy sëriñ Babacar si Abdou ñu koy wax sëñ Mbay Abdou ñu gën koo xam ci njool Fuuta dem ba ca moom yóbbul ko kaamil boo xam ni couleur arc maanaam drapeau góor jigéen ñi moo tax mu ni ku def lii kay na sëy sa jumaa dootul ma ta wax kuy naan caagi di kay ah? eh, ni am na nu ko olof waxee wax olof dafa wax ni eh, kuy naan ngelaw boo séenee caagiri dootul ma ta wax ngelaw lii ku koy naan far ñu jël butéelu kaas boo xam ne caagiri lañ ci def ba mu ni am naanal kuy naan ngelaw boo séenee butéelu ca caagiri dootul ma a wax kon loolu lu ko gën a garaaw amul fan la amee fii ci Sénégal Tiwaawan dem seeti ku kilifa gu tedd yëkkati ko jox ko ko mu génne kaamil bi ñëpp a gis Serigne Mbaye Abdou nu mu génne kaamil boole ko waaw ngeen ni waa sàmm jikko yi nag duñ sàmm jikko yi hmm? déjà ci loolu rek waroon nañ koy taxaw valider valider rapidement criminalisation de l'homosexualité bi ci li ñu wan Serigne Mbaye kase waroon naa tax ñu validé ko te xam ngeen sëñ bi Abdou du caax du kuy caaxaan sëñ bi Abdou ku nekk xanaa Sénégal lu ñu nangoo di nangoo di nangul nag sëriñ bi Abdou ci yaroom ci teeyam ci dalam ci maanoom am na ko ma xam ni oustaz dama bëgg nga boole ma ak sëñ Baye Abdou ma ne ko du ma la boole ak moom demalal sa bopp booy dem Tiwaawan demal Zawiya Seydi Hadji Malick laajteel maam Ousmane mi ngi ci daara ja mu mu wan la sëñ Baye Abdou difficile oyof toll doo jël ay million jox ko nit wala joxaat ko bëkk néeg sàngam joxaat ko bëkk néeg sàngam ñu dajale sa xaalis téye ko ba pare door laa wan sëriñ bi kooku du sëñ Mbay moom li wax nag dama ko xam am ñoo pour nga gis sëñ bi moom protocole bi mu laaj gudd na torop léegi ñëpp di xoolee bët sëñ bi ak metti sëñ bi gis ko dafa jafe yeneen bi kenn daaw ko gis muy jafe Seydina Muhammad waa léegi oustaz ginnaaw livre boobu ñu tëj émission bi livre boobu wane toj dëkk bi actuellement euh, ban taxawaay nag jot na nag gars yi ñu ñu ñu ñu ñu booloo taxaw waaw vraiment waaw laaj laaj nga lu am solo l'islam bi lislaam <clears throat> bi l'islam bi mm. Sénégal daal boo bëggee dégg dëgg mm. am na ko wax bu am solo mm. nee fi léegi chef religieux yi ñu am këru diine yi ñu am dajalowuñu benn doon benn oote benn kàddu ni ñu koy waxee ci suuf noonu ñu fësal ko àdduna yëpp teg ci seen bët am na ko ni balaa muy gëm ni balaa balaa affaire yi di dox mooy ñu ni tey day màggal tuuba ñu ni day tiijaan ya ñoo koy jàng ñoo koy waxtaan gàmmu Tiwaawan ñu ni mbàkke mbàkke yi ñoo ñëw ñoo ko fas yéene waxtaane appel laayeen ñu ni tey day waa kër sunu maam borom Tuubaa waa Tiwaawan ñoom lañu bàyyi ñoo yor tem bi ñoo koy def direct gannaaw suba ñu ni Tuubaa laayeen yi ñeseen yi ñi yor diine ji image boobu fekk amuñu ko ba réew mi ñëpp stable xam ni boo tuddee benn mag fii egguñu ci nga tudd benn mag wax ci moom safaan àdduna yëpp dal sa kaw murit ba tijaan ba xaadir ba laayeen ñëpp di mer fii egguñu foofu li sëñ Cheikh waxoon kay leer na seen Cheikh Tidiane si li mu waxoon kay leer na nee na waa ji dafa ñëw ni ko dañu laa bëgg a jox alal ju dul jeex alal ju dul jeex pour pour nga fay muridisme dem ci sëñ Abdou Lahad même club bi même équipe bi sëñ Cheikh ay nettali de sëñ Cheikh Tidiane si mooy nettali nee dem ci kër si sëñ Abdou ni ko dañ laa bëgg a fay alal gu dul jeex pour nga fay tijanisme gars yi ci xeex yooyu ci lañ ne ba tey format bu ñu ko mën a defee nag ak fu ñu mën a jàllalee pièces yi ñu ngi koy def moo tax chaque jour man bu dara amee ci côté diine fii ci Sénégal duma xool ci ñi koy def damay xool ci kaw. ci kaw ngay xool bu ci ñëpp noppee rek yaa quelque chose mais ñi ci kaw bu ñuy wax rek jàmm di am man maa la wax lii Kaja. jot na kili kër kilifa diine yëpp. ñu def benn say. waxuñu sax ñu toog ku ne di waxe sa côté mais ñëpp teg seen bët ñëpp toog benn ñëpp kilifa yëpp bokk benn jotaay. loolu daal jot na seen nga seen sëñ Mountakha Mbacké mu toog nii sëñ Babacar Si Mansour toog nii xalifa Laayeen toog nii xalifa ñu ni tey ñoom rek nag. ñu mbokk benn jotaay bi ñëpp gis leen barki Seyduna Mohamed lii mooy jàmm Sénégal buy am Sénégal di am jàmm bu ko defee gars yi ragal waaye nag am na ku ma mos wax ni ma état bëggul mukk gars yi ñëpp dajaloo doon benn am na ko ma mos a wax nag xaw ma lu mu ci jublu moom. nee na nee na nee na nguur bëggul loolu de. pas ñi fi ne nag lu yàgg la loolu. ñu leen jiitu ak ñu leen jiitu te wax nañ dëgg gars yi divisé pour eh, bien bien régner. waaw mais nag oustaz jot na nag ah, jot na nag ndax ah. lislaam mm, lu ko ëpp doolee amul jot na nag kilifa yëpp yëpp yëpp yëpp ñu bokk ñu toog di leen gis ñu bokk benn bërëb suñu xol sedd suñu xel dal loolooy xolu nit neex parce que ku am audace jël livre bu toll noonu dem jox ko kilifa gu toll noonu ah ñi la ngemb ah. kii nga wóolu nga sa bopp merci beaucoup am fit bi am fit bi waaye foofu da ngay torox kon da ngay parce que boo ko defee daal oustaz soxla nañ non parce que boo defee ñooñu ñooñu ñoo doy de waaw boo ko defee yow tam góor jigéen kay moom jeexal na wax góor jigéen atte bi li ci yàlla wax dafa réew góor jigéen moom bu la kenn nag koñ bu mu am waxuma la réew bàyyil xel ni barke du fa am ñu xam ko nës nësal ko barke du fa am fii kay Thiès yëg jigéen bi génn àdduna fii Thiès nii nii côté Daaru Salaam yooyu gis nga li ci xewoon coow lu bari loolu kay yëg nga ko bàcc waaw ñoom ñu am ful la ni carrément duñ ko suul ci armeel jullit yi waaw waaw léegi nag calculer loolu bu ko ñëpp defee day gis nit ku dee ñu xam ni góor jigéen la ñu nes maslaa parce que parce que dañuy maslaa maslaa ba jullee ko ah seddal ko ay kàddu yu baax rafetal ko yóbbu ci armeelu jullit yi que ni or loolu du diine. maslaa boobu nag war na ba war na wàcc Sénégal. Sénégal côté diine moom liñ ci maslaa dafa ëpp. côté diine liñ ci maslaa dafa ëpp. soxna waxtaan bi am na solo xam naa ne bu fi toogoon fii ba suba du tax ñu mu jeex ndax mbirum góor jigéen moom non foog ñu taxaw ci wax ci mu jeex Sénégal ndax bokkul ci suñu religion li tax suñu réew mii bëri coow di dellu ay ginnaaw mbirum góor jigéen bokk na ci man daal image boobu oustaz mhm. ñaan leen ci yéen ñi ñu am image boobu bépp koy kilifa diine ñu àndandoo toog benn benn bërëb ñu leen di gis suñu xol neex ñu ñaan Sénégal